gars yi damaa bëgg amaa may jox Cheikh Bara man li ma nekk Sénégal su ma waxee da nga naan nervi la Macky Sall Macky Sall Amadou Ba Cheikh Issa Sall Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye la coalition Bassirou Diomaye Faye xëdd voté ba mu jubilé maa ngi leen di nuyu yéen xale yu am jom yi kontaan naa ci seen teewaay tertu bu rafet bi ngeen ñu tertu di leen wax le 24 février amul nelaw 24 mars boog xëdd wate ndogu civilé ban carte na ngeen di wateel Bassirou Diomaye Faye mooy xale bu rafet bi mooy jekk sikkim moo man moo ëpp doole moo gën a féete xale di leen wax def ngeen erreur boo xam ne bu leen yàlla baalul yéen waa Mbour yëpp da ngeen am problème parce que ku mel ne Cheikh Issa Sall ngeen jël ko di ko dénk loo xam ne public bee ko moom loolu da ngeen koo war safoo ngeen benn bennal ngeen kenn kennal dem ci Lamine nag man musuma gis sérieusement nag aw askan fal ay xale ay góor ay jigéen nga bañ leen ba nga xam ne li ngay xëy ci commissariat moo ëpp li ngay xëy sa bureau fuñ la fekk yaa ngi xool noo rëbbe ndaw yi di leen tëj Issa Sall Issa Sall li mu dem pelanti ko doomi Mbuur su ko liggéeyoon heure bii bu ñun bu ñëwee duñ gis nit man mi dëkkul Dakar sax man mi dëkk Dakar sax damaa dem ba yërëm waa Mbuur parce que autorité boo xam ne bu sañoon xale yi Mbuur ci kaso bi la ñuy yewoo ci Cheikh Issa Sall ko njëkk a ne xam nga dañ ne Biram Ngoone Biram Ngoone ñu ne naan waaye Cheikh Issa Sall bu jëlul ndër wi rek ma ngay benn affaire xam nga lan moo tax mu bëgg ay nervi bu xat ab ragal la moo tax xoola bu làqatuwul ci ginnaaw goro baran yi rek day yaakaar na da ngeen koy rey mais bu leen ko rey waaye folli leen ko ba mu nekk personne non grata fii ci Mbour wala Cheikh Issa Sall Cheikh Issa bu juddoo woon ci dëkk boo xam ne ay norme lay am cag-cag lay dawal wala sax fa nekk cag-cag lañ ko wax kooku warul seere kooku warul seere lu public moom parce que xol bu fekkee xol yow mënul muñ boo gisee xale toroxal rek nga ciy gis kooku waroo nekk ci kooku privé nga war dem kon nag ñi ngi kontaan di nuyu sëñ Mara Niass bi ngeen di nuyu Karim Borom Fata Amar Bamba Diop Amar Bamba. ba tey euh, ci li nga xamante ne moom mooy euh, euh, caravane ànd ak yéen ci lu soxal ba tey caravane bi gis ngeen ñëwoon fii ci mairie bu.